jajeuf mbokk yi alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi ak ñun ñu ngi ci capitalu faydatu tidiane di mitna Baye keur Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass qadimul umma ngir fas yéene dégtal leen li nga xamne kon mom modi ceremony remise de participation bu fond Medina Baye jëmele ko ci li nga xamne kon modi di phase finition bu esplanade maulid bu Medina Baye di tante bi nga xamne kon ñu ngi koy tabax ñu andandor ak yéen tewlu li nga xamne kon mom modi kàddu ce tour lañ bind fi Cheikh Mahi Cheikh Ibrahim Niass, Khalif général de la Faïda Tijaniya, pour la finition de l'esplanade à Medina Baye. Nous avons fait date le 17. Nous avons signé chèque le 17. Le 17 août, nous avons signé 2024. Ci banque islamique, nous avons tiré. Nous avons tiré, nous avons tiré, nous avons tiré, nous avons 20 millions. 20 millions euh, lii symbolique la remise symbolique la. mais nag lépp lu fi nekk rek. ñu ngi leen di sawar ci wax leen bisimilah ci seen pays gannaaw loolu ñu ngi gërëm dëgg-dëgg taxawaay bu rafet bii nga xam ne taxawaayu diine la d'abord ndax luy dundal diine ci dañ bëgg a jël def ci suñu xaalis luy dundal diine ndax loo xam ne bu taxawee lañ fay nekk yépp mooy firi alxuraan wax ci yonent yàlla muhammad wax ci lislaam wax ci lépp loo xam ne dafay tekkee nit ak jikko yu kawe yi nga xam ne moom la yàlla bëgg nit nekkee ko ci kaw suuf si donc bon lislaam rek dañuy liggéeyal comme ni ñu ko yàlla sante comme ni ñu ko ci yàlla Muhammad sante comme ni ñu ko doonee ci suñu bàyyi ñun ñëpp ndax kenn ku nekk ci ñun sa kër bàyyi nga doonee diine demoo ci biti jàngi diine danga génne sa kër bàyyi fekk jullit nga da nga génne sa kër bàyyi fekk xam nga laa ilaha illallah muhammadu rasulullah da ngaa génnee sa kër baay fekk xam nga doolee alxuraan ci àddina ba tax nga nangu caa yóbbu bu la ci sa baay yóbboo nga nangu ko donc bon ay julli rek ñoo fi nekk yoo xam ne ñu ngi góorgóorlu ci tànk yi nga xam ne dafay kawlal doomu aadama tànk yi nga xam ne dafa yëkkati doomu aadama tànk yi nga xam ne dafay yokk doomu aadama ci tànk yooyu rek lañu bëgg a nekk te du ñun ñoo ko fent mais dañ koo doon ci ay waajur yoo xam ne seen dund yëpp ci loolu lañ ko def seen dund yëpp ñu ko jeexal ci jàngal doomu aadama mu àgg ci darajaay wala xat karram naa bani aadama ànd ak nit bu ko àggale ci darajaay inna akramakum indallahi atqaakum président bi muy wax eh, eh, eh, Abdourahmane ah, mu ne man taalibe laa taalibe buy wax la vraiment dama kontaan ndax ma demee Nigéria voyage bi benn buur di ma dalal ma ne eh man mënoon nañu maa bàyyi ci saa yi ba rek ak taalibe ma nekk ak ñoom waaye buur seen taxawaay xaw ma ko ah musique la taalal la ay ti <laughs> euh, donc bon dama dama taxawaay rek la jamono bu nekk nag yàlla mu ngi préparé nit ñoo xam ne ñooy taxaw taxawaay jamono boobu taxawaay ci la lu nekk di bàyyee ko ci la yëkkatiku di bàyyee ko ci la nit di bàyyeekoo ci la yeewute di bàyyeekoo ci la xam ci la ci ci la nit di xamee naka lay defee ba yokk ndax moom kenn mënta yokk waaye mook ak moroomu itam ñooy ànd yokk alhamdulilah biñ xamee ne ñun buñ dajee bëgg a yokk fi ñuy yóbbu suñ yokkute googu yàq nekku fa luy dolli diine moo fa nekk luy dolli xam-xam moo fa nekk luy dolli nangul nit moroomu nitam moo fa nekk luy dëggal aslixu bayna axawaykum ci lañ nekk ci lañuy dugal suñu yëpp bon bu ñu amee ay góor ñoo xam ne ñi ngi taxawee loolu te góor ñoo xam ne ñu ko mën lañ ñu ko àttan lañ ndax discours yi nga dégg fii yëpp di nga xam ne ay capacité ñoo fi nekk ay nit ñuy foraatu nekkuñ fi nit ñu xam ñoo fi nekk nit ñu xam dërëm lu muy tekki ñoo fi nekk nit ñi xam dugal dërëm ak génne ko lu muy tekki loolu yëpp nit ñu mel noonu ñoo fi nekk bu ñu fi nekkee te loolu yëpp xam dërëm ak àddina beeg nangam ak nangam yëpp nga nangoo jël lu em na e, xaalis bu bëri bii ngeen indi ne nañ ko def ci tabax bi parce que tabax bi tabax lañ ko mën a tuddee waaye e, yéegukaay rek la yéegukaay rek la <coughs> ndax liñ fiy def liñ fay def yéen ñëpp xam ngeen ko bu ñëwee fekk mu gën a rafet dafay bàyyi ñi ci biti xam ne bu ñëwee dinañ xam ne waa Médina itam ñu ngi liggéey ah taalibe bàyyi ci Sénégal itam ñu ngi liggéey ñi ngi xam li erloog seen pays ñu ngi koy def du pour bëgg àddina waaye pour jàngal àddina bi itam ne yàlla dafa bëgg lu rafet inna allaha jamilun wa yuhibbul jamal bon booy rafetal yaa ngi rafetal ci turu yàlla booy baaxal yaa ngi baaxal ci ngir yàlla te bu ñu amee góor ñu yem noonu mën a koo taxawee noonu ci taxawaay boo xam ne taxawaay bu set la dara li li jotaay bi lu set la xaalis bii di génn lu set la lu ñëpp ñëpp seen xel yi nangu nañ ko amul ci kenn ku sa xel yi def nii def nii parce que xam nga fi mu jëm lu leer la loolu yëpp bu taxutoon nag ay góor ñoo xam ne xam nañ ko mun naa am euh, mu am eh, eh, eh, waaye alhamdulilah góor ñi ngay jëflante góor ñu xam lañ yi ngay waxat ñu ñu ñu ñu nangu lañ ñi ngay waxat ñu xam waxtu tànn jotee lan ngañ war a tànn ñu xam loolu lañ ba pare tànn ko nangu ko def ko ak discipline def ko ak cofeel def ko ak mbugeel def ko ak euh, namm euh, euh, may yàlla yi nga xam ne du jeex mukk te waxtu woo tàllalee sa loxo jëme ci may yàlla yi yàlla du la delloo uddu nii استجيب لكم دموي غاي تخاو دي واخ يالا يالا يالا يالا رك مي لي سي فاسوغي نيان يي غنا كاويلا نخ يالا مو واخ ني انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث من تنفقون لما لين ماي ген لين سي جوخي غير مان ها جوخي لين سي ген لين سي جوخي غير مان با نك جوتاي بي génne joxe ngir yàlla moo ko war te yàlla nee na amul dara loo xam ne yaa ma koo jox te duma la delloo lu lu gën a bëri li ma jox yal yàlla delloo si kenn ku nekk ci yéen ak delloo si ko ci fond bi nu gën a kawe nu gën a màgg noo xam ne danañ fàtte fàtte ne mus nañoo génne vingt millions pour dugal ko nangam mais fi ne ay milliards la ñuy génne ay euh, ah ay centaine de millions la génne parce que suñ tabax bi suñ tabax tabaxu Cheikh Ibrahima bi ñu ànd ne ci lañ bëgg bokk ku ne xam ne ne ëpp na àddina ak li ci biiroon ëpp na àddina ak li ci biiroon ndax euh, bi ma demee Cameroun quelque fois vraiment da ngay toog di xalaat voilà ba jeex doo xam lan la ah doo xam lan la waaye dangay ngay sant yàlla la bàyyi waxoon ne bu taxutoon ak Cheikh Matiyaan dinaa dee ak gàcce. waaye bu toxtu nag bàyyi itam dinañ dee gàcce ah ndax euh, euh, lu nekk la la yàlla di woon li ngay gis nii ci nit ñi di ko def yëpp ñoom dañ koy def rek mais yàlla moo lay woon yàlla moo lay woon te jëliyaatam yàlla moo lay woon dooleem yàlla moo lay woon benn waaye bu dëkk Sénégal mën a ñëw fii ci Cameroun def fi lii mu fi def loo xam ne Cameroun yi mënuñ ko dëgg-dëgg am na fa benn groupe sénégalais bu ma gis ñu ne ma ñun fii lañ doonee taalibe Baay waaye waaw Jolof lañ dëkk waaye fii mat nañ fukki nit waaye fii lañ doonee taalibe Baay fii lañ tarbiyoo ah. mais den sant leen yàlla bu ngeen ñëwoon dégg ko ñu nettali leen loo xam ne dangeen ngeen dul sa wax ne Sénégal ngeen dëkk bon gàcce lay doon waaye bi ngeen ñëwee gis ne nangu ngeen ci dugal seen bopp bon lu kawe ngeen ciy fekk waaye nag da ngeen xam ne yéen taalibe ñii ngeen du ngeen taalibe Baay ñii ñooy taalibe Baay <laughs> alors ci kaw bëgg defar ci kaw bëgg suñ pays dund ni pays yëpp te borom pays bi dégle na ci pays bi lu nekk ne lu nekk mën na fee lu nekk mën na fee xew ci yiw ak mbaax ak kaweek euh, xam-xam ak nite yëpp mën naa génn ci pays bi daanaka du du du université yu rëy yooyu waaye mari na yëpp université la Cerno Diop euh, euh, avocat la woon député la woon politicien la woon moo ne daf daan wax ne Médina Baye université mondiale la moom nu la ko tuddee woon Médina Baye université mondiale la ci jamono booba nag seetal nag yëpp a ngi gën a dooleeku yëpp a ngi gën a ubbeeku te nit ñi ñeme nañ ko dawuñ dawuñ lu ñëw rek ñeme nañ ko attan nañ ko nangul nañ ko parce que xam nañ ne yàlla rek moo fi moo fi nekk ak te tëjëliyaatam yu for ah yoo xam ne dépassé na xel ñi waaye am na xel yoo xam ne itam mën nañoo ànd ak tëjëliyaat yi ba ni ñu war a taxawee ñu taxawee ko bon ñu ngi leen téléphoné naa bàyyi siis mu ne xaalis bi nañ ko joxal ah Cheikh si sa jéer yi moom boo ko joxee daanaka jox nga ko ko bon nag ci loxo Cheikh si Diéry lay dem euh, gërëm leen ñaana leen yàlla bu baax a baax a baax yal na seen taxawaay romb fii gën a kawe yal seen yëkkatiku romb fii gën a kawe yal seen ubbeeku xol ngir yàlla gën a yaatu ndax luñ mën a def rek xam ne ci yàlla lañ koy tàbbal tàbbaluñu ko feneen te yàlla nee na boo ma joxee benn man fukk laa lay delloo te te dëgg la te dëgg la ku ku ku dundu Médina 1952 53 ak euh, hein? 2024 vraiment di nga xam ne liñ doon wax dëgg la hein? hein? ah. da <laughs> nga xam ne da nga xam ne ñii liñ doon wax dëgg la. ñi liñ doon wax réeru réeraluñ nit ñi mais dañ leen a tabaxal yàlla nañu yàlla may ñu gën koo mën a sàmm ñu mën koo gën a dëgëral ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal na yàlla fay leen incha allah li ngeen ma wax ci fond bi dinaa ci def suma kem kàttan dinaa ci waxtaan ci nit ñi boo gàmmu jotee dinaa ci waxtaan bu ma waxtaan ci jumaa ji dinaa ci waxtaan euh, ndax itam ci kaw nii maa ngi gën a maa ngi gën a xam important su fond bi parce que ndax euh, dugaluma ci woon sama hmm, sama sama sama loxo dugaluma ci woon sama gëstu ah waaye nag tey waxal ngeen na seen boppu noo xam ne dolli na ma xam-xam bu gën a leer ci sama bopp ci fond bi donc bon dinaa ci taxaw incha allah ñëpp noo xam ne bu ma ko defee dina tax nit ñi sawar ak ñëw ci yéen incha duma ci dellu gannaaw. jazakumullahu xayran jërë ngeen jëf. ñu ngi sant yàlla bu baax.

ci ndigalal xalifa bi itam parce que def na effort effort bu baax a baax a baax la def boo xam ne bañ demee ba yegg si fii euh, lu des mooy ñu mottali ko ñu jot ndigal ci xalifa bi ne fond bi war na cee dugal loxoom pour ñu mottali ko fond bi réunir daje daje ci daje bu gaaw gannaaw bu jotee ndigal xalifa bi daje boo xam ne matut 48 heures ndax fond bi ni muy doxalee ku ko xam xam ne ci diggante bu gàtt bii nii bu fekkee def na ci lii mooy ne dëgg-dëgg def na effort bu mat sëkk puisque fonds bi dafa am lu ñuy ooyee conseil de fond, conseil d'administration la boo xam ne fukki nit ak juróom-ñaar ñoo ci nekk ki leen jiite mooy président Babacar Carlos Mbaye di ancien ambassadeur du Sénégal fu ne di nit koo xam ne ku chevronné la ci wàllu diplomatie ci wàllu administration ki ci topp ci moom mooy professeur Banga Gissé. nga xam ne moom tam professeur de droit la à l'université de Saint-Louis mu am nak ñi ci nek ñepp di ay borom xam-xam ci ay spécialité yu wuté ci fond bobu amna ci ño xamne ne nekkuñ sax Sénégal ñee nga Amérique ñee nga fenen fi ci biir dëkk bi buñ leen di wax ne fond bi ñi ci bok ci conseil bi man mi la ak Cheikh Abdoul Malik ak Cheikh Baye Oumou ak euh, euh, mustapha Ibrahim Diop ak pap Mahmoud ak babakar Mbapas ñooñu ci bok bok ñi ci des ñepp ak Alioune Diop ñi ci def ñëpp ñu ngi tasaaroo ci réew mi dekk ay taalibe bala ñoo def benn décision fo juróom fukki nit ak juróom ñaar yooyu yëpp dañ joxe seen xalaat lii lim gàtt gàtt gàtt ñoom ñëpp joxe nañ seen xalaat rafetlu ko tey nag ñu ñëwoon indi 20 millions boo xam ne dañ ko contribuer pour ñu mottali esplanade bi pour ñu mën cee gàmmoo gàmmoo gu rafet bala gàmmoo gi jot waaye ci loolu danaa fàttali lenn ci jëfi fond bi fond bi bañ ko sosee léegi ñu ngi ko sos le 17 février 2019 boobaak Legui, dugal na am plus de 400 millions lu ëpp ñeenti téeméeri millions fonds bi dugal na ko ci liggéey xadara bi am na ci yoo xam ne luñ mën a la nga gis ko bi mu a def jëf ji mu njëkk def moy bi Sénégal amé Covid ñëpp jaxlé mu génné 55 millions def ko ci euh, Covid 55 millions yo xamné 10 millions def ko jëndee ay masque ak gel ak yu démé nonu jox ko daara yi ak yenn kër yi. 35 millions yi mu jëndee ko ceeb benen 10 millions bi mom la participer pour khalifa bi participer ci fond Covid bañ ca jógee ñu jël en charge tabax bi nga xamné ne benn taalibe aw sa moo defoon moo def ci école bi defone fondation bi bañ lajé sëriñ bi lan moo gëna gën a itteel mu ne ñun ñun li gëna gën moy jang ak li nga xamné moy xam-xam ñu né ko lo bëgg ñu def mu ñu bu joxoñ ñu foofu ñu jël euh, tabax ba

defaral mako ko ngeen àggali ñu fond bi jël ko agaliko pour une valeur de 115 millions mom tam téeméeri millions ak fuk ak juróom gannaaw lolu euh ñu défé projet tool baay bii projet tool baay bi biko sëriñ bi diddee rek fond bi yëkkati na 10 millions jox jumaa ji gannaaw gannaaw bi nga xamee imam sollicité nañu ci gàmmoo gu doon wajé ñew boba fond bi jënd na euh, joxé na 10 millions pour ñu jënd pour qui le peuple pour qui va la terre armoire ak armoire climatisée yo xamné fond bi moko jëndé ak défarat yenn yi fi nekkone yépp nek bay bi fond bi réfectionné wat ko pour un montant de 3 millions euh Xavier Mam Aladji Belé fond bi def na ci mo def carreau yépp pour une valeur de 11 millions 650 000 j'espère 685 000 pour une valeur de 11 millions 685 000

mu ko joxagum ci loolu gàmmu gu jot gàmmu gu njëkk gi joxe nañ eh, beneen gàmmu gu joxe nañ dara boo ko valoré daal dana dana romb 40 millions yii dañuy joxe 20 millions yii joxe 10 millions yii joxe 5 millions donc euh, léegi addiye shérif bi lii nag dama fi taxaw tuuti pour leeral leen fond bi initiative bi lan la li ko tax a jóg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy addiye shérif yii nga xam ne dañ ko daan tabax dajale ci jumaa ji yàlla def na yàlla barkeel lammiñu ak ay na ñetti nit Cheikh Mahi man mi ak Cheikh Abdoul malik ñoo ñoo daan ñoo daan def buñu juba sifa ba pare dañu génn toog foofu nga xamné fi la serigne bi di jullee am bés Cheikh maa nañu ñun dé dañu wara a waxtaan ci lén moy waxtu fi sëriñ ñëwé da ngay géegi ñaan euh talibé sangam jaam yalla 1000 francs jaam yalla témèr lolu dafa wara jeex war nañu dajalé lo xamné waxtu wu fi yu melni amé ñu génne ci fond bi jox ñu ne ko ah sant yàlla alhamdulilah nañ ko def

ci banque ñetti banque yoo xam ne UBA la banque islamique ak BOA pour lan muy jur pour itam di xalaat fond bi am na ay aînés yu bëri yoo xam ne dana ko def bokk na ci li mu gën a li ëpp solo tey wax naa leen ne am na loo xam ne te mënu ko làmb gis ko maanaam ni kilifa gu feebar ñu jàppale ko mu dem faju loolu def na ci lu bëri ba tol loo xam ne toll na dix millions douze millions waaye dañoo gis ne li ko gën a efficace mooy lan mooy njaboot ak baay gi bu ñu waxee njaboot ak baay gi doom yeeg yenn muqaddam yeeg taalibe yëpp ci lañ bokk dañ leen bëgg a assurer assurance santé def nañ étude bi ñu koy ñu ngi ciy liggéey ba tay liñ njëkk a jot moy né pour assurer la nga xamné bo boo ngay dem rek hôpital joxe sa carte assurance ñu faj la fond bi fay bu même buñ la bëggee yobul bitim réew fond bi mooy jël en charge lolu ñu ngi ciy liggéey te am nañ yaakaar né balaa at mee jeex danañ ko motali inshallah assurer mboolem njaboot gi manam taalibe baay yu mag yi doomi yi góor ak jigen ak mboolem muqaddam yi nga xam soxla nañ lolu assurance santé kon dal ci gattal liñ def bari na lool léegi nag yéen journalistes yi bu fekkee ne bëgg ngeen détail bo xam lima wax ni ci plus de 400 millions yi bu ngeen bëggee détail man ngeen a jege administrateur général bi amena lepp ci këyit léegi fi may tëjee mooy ren rek moy fond medina Baye xëj na ni muy doxee dafa dafa niru lu jafe ni muy génnee xaalis dafa niru lu joxe parce que moom dafay jaar ci yoon génnee xaalis ni ko Cheikh Abdourahmane waxee léegi ne ñun maanaam kuréel lañ goo xam ne ëllëg état mën nañoo contrôler mën nañoo auditer dañu loolu nag dañuy bëggu bés bu koy def ñu lépp lu mu gis mu nekk lu rafet te loolu ñun njëkkee wuñ ko yàlla moo wax ne ci alquran ne wa amruhum shura baynahum yaa ngi dégg وخاد وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله لول يالا loolu yàlla ko wax ñun nag ni ñu doxalee mooy fukki nit ak juróom-ñaar yooyu ñooñu ñooy ñi nga xamne ñoy jël dogal ci fond bi pour fond bi mëna gënné xaliss waxtu wo xamé na jot nañ ndigal mu joggé ci khalifa bi dañ koy càmbar président bi dana oté même bu mi nekkut ñëpp dana len o ci téléphone ñu wax liñ ci liñ ci xalaat buñ ko buñ xalaatee ba pare ñu dajale loolu yëpp nak bind ko su fekkee ne ña ëpp ñoo wax ne nañ ko def ñu def ko bu fekkee ne dañ ne buñ ko def ñu wax ne li tax duñ ko def bu boobaa duñ ko def kon nag fond bi mooy loolu ñu ngi ooaat sëriñ bi oote na léegi moo xam naa oote moo gën a dëgër sama oote man waaye ñaanal nañu gërëm nañu sant nañu te ñu ngi oo mboolem taalibe yi xam ne ku fi def sa dërëm daal li nga def damay xam ne ci liggéey bàyyi la jëm bàyyi moo wax ne inna alladina xadamu nii naalu muraadahum saadatan wa maalu kon lii dafa dugg ci liggéeyi bàyyi ñu leen di sant di leen gërëm alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di gërëm suñ sëriñ Maulana Cheikh al Islam alaaji Ibrahima Niass ñu ngi ñëw fii nag ci kër xalifatu Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima ñas ñëwoon benn audience boo xam ne fond bi moo ko sàkk woon ci xalifa bi Khalifa bi joxe won digal pour ñu génnee 20 millions jàppale ko finition liggéeyu esplanade bi nga xamné ñu ngi ci gëreum bay 6 bu baax daanaka réalisé wu na ñu ngi ak vice président di professeur Banga Guissé di ànd ak un membre ki doon wax légui fondamental président commission sociale nek fini ci Medina Baye di Cheikh Ibrahima Niass Baye Khady Niass di def liggéey bu am solo ci Fonds dina Baye rawatina couverture maladie universelle bi nga xam ne moom la diriger pour mbooleem njabootu Maulana Cheikh Ibrahim ñëw na nag joxe nañ li teg nañ ko ci loxo Cheikh Cissé Diéry mi nga xam ni moom la nekkal ñu ngi ànd ak l'administrateur général du fonds muy Mohamed Gueye di ci liggéey liggéey bu am solo man nag li may wax ñaari baat rek la dund bés bu ci wàññeeku rek xamal ni dund gaa ngi jeex rawatina nag alal alal gi nga xam ne dafay wàññeeku saa su nee bés dana ñëw mu mas a jeex su fekkee commencé wuñ di ci yokk loolu mooy lan mooy Fonds Médina Baye gis ngeen ni nga xam ne moom la ko Cheikh Baye Khady waxee mu ngi wàññeeku rek parce que ñu ngi ciy def lu mucc ayib ñu ngi ciy faj njabootu Maulana Cheikh Ibrahim gi lañ mën gis nga léegi participation bi ñu def ñu ngi ciy jàppale shérif yi sëriñ si pour addiye shérif yi gàmmu ñu ngi ciy def enveloppe bu am solo tool bàyyi def nañ ci dix million esplanade bi def nañ ci vingt millions jumaa ji def nañ ci lu ne zawiya maam alaaju abdoulaye bi karol yi ñoo ko jël en charge te loolu yëpp xaalisu taalibe yi la ñoom ñoo ko cotiser woon ñu ngi ñaan nag comme taalibe yaa ngi ñuy dégg fu ne képp ku am loo xam ne yaa ngi ko bëgg a liggéeyalee baay fond bi yey na ci parce que su ngeen ko su ngeen ko ci defee pertu leen ko su ngeen ko ci defee yéen a ngi jàppale Medina baay pour ay réalisation yu mag parce que li wër ba wóor mooy ñu ngi jëm ci fan yii di ñëw ci ay réalisation yu kawe te gisuñ ci lenn lu dul seen dimbal lépp lu ngeen ci mën a def billahi xeebuñ sax cent franc compte bancaire yi ñu ngi fi numéro Wave yi ñu ngi fi ñun ñu ngi fi képp koo xam ne bëgg na liggéeyal baay su ngeen ñëwee su ngeen ñu ko joxee danañ bind sa tur bind sa sant xool li ngay liggéey ñu bind ko loolu yépp ñu def ko ci fond bi te wallahi maa ngi leen di seedeel ne képp ku ci mas a def sa xaalis bind nañ la bind sa tur wasalaamaaleykum wa rahmatullah di wax ne ñu ngi taxaw fii ci tànki président Baye Ciss moo ñu woo ci gannaaw wax ne dafa bëggoon ñu ñëw teewal ko fii ci kër xalifa bi ci cérémonie boo xam ne li ko waral mooy comme li ngeen ko déggee waa fond bu Medina Baye ñoo ñëw pour indi participation bu valeur yi 20 mu ngi nii ma téye te xaalis baa ngi sama loxo pour dimbale ko ci yeggali liggéey esplanade bi ñu doon def fii. mu wone ne moom ci boppam buggoon na teew fii lool waaye mu nekk Dakar ci liggéey pays bi ba léegi rek. gàllankoor yooyu ñoo ko téye ba tax ta teew mu ne woon naa ñëw teewal ko di wax ne mu ngi sant mu ngi gërëm waa fond bi te itam yegg si na ci waxtu wi nga xamante ne bii mooy ñu ngi ci finition yi ku dem nag bay rafetal ku la indil 20 millions yaakaar naa ne kooku bëgg na sa taar dooleeku moo tax ba cantam am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaan yàlla te comme ñoom ni ñu ko defee def appel ci mboolem taalibe Baye ñun ñii ñëpp ay taalibe Baye lañ ñii liggéey ci esplanade bi taalibe Baye lañ kenn ku ci nekk nga xam ne fon bi sa fond la nga def lépp loo mën ci biir ak ci biti pour fon bi dund am fonds yi nga xam ne moom lañ séntu ci moom muy ay centaine de milliards pour mën a def liggéey yi nga xam ne yii moom la sëriñ bi bëgg def ko fii ci pays Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass jërë ngeen jëf.